nekkoon maam mayaa ñu ko saraxoon defaral ñu ko depuis que lor ndox mi yóbbu na ko jeex na amatuñu fi leneen suñu problème problème mu ndox la problème mu yoon la ak problème mu liggéey waaw gis nga jigéen ñii toog ku leen financé ñu dem fii nag Daaru Rahmane li kenn ku ci nekk ak ñi nga fiy duggee ngi fi dugg di jël nit ñi di leen financé ñii ngi fi dugg di def leneen ñii ngi fi dugg waaye ñun ki ñu ñor mooy yow mii sama sang bii nag daaw si mu njaxeer ma ca cëw leen ak melay sama maa jigéen daaw si mu ma ca cëw leen macha allah fu ma woo ma wuyu ko dama ko waxoon ne ko bàyyi naa politique dootuma politique waaye nag kuy wàlle waan sa dëkk dafa tëggul bu sa dëkk tëggee nga jóg te nag ñun ñëpp jóg nañu nag jigéen ñi daal raxmaan ñëpp jóg nañu jàppale la yàlla na la yàlla teg nag ci bopp mairie bi suñu tawat daal moo ngi nii ku ñu financé ñu liggéey ku ñu jàppale ci yoonu daaru raxmaan yi ñuy dugg di génn ku ñu jàppale fu ñu tuur ndox lii mooy suñu tawat yàlla na la yàlla jàppale nag te it ñoo ngi takku nekk ci sa ginnaaw. oto boo na daaru raxmaan mu làng ko wax ma tey jii daal damaa ne opitaal ana sama yaay tey jii ñëw ko boo na daaru raxmaan mu ne daaru baax mu ne waa daaru raxmaan léegi aw na di ñu ne aw na waa yoon dafa bëri amul tali amul yoon koo ne wax mu ne ay lu seer loo xam ne kenn nangu fee ñëw ndax ndax bonaayam rek benn nit du ko gañe il faut nga am ñoo àndal pour gagner moom mi nag ñoo bokk coalition te comme Daaru Rahman la dëkk bi ma amee bi ma Mandiaye waxee ni ma pour ma ñëw fii dama ko woo téléphone parce que fii ci goxam la bokk ma ànd ak moom ñu ñëw fi parce que boo xoolee Tëngéej man chaque jour damay wax Daaru Rahman ci biir Tëngéej la nekk mais Tëngéej moom feebar ñu dañu am problème ay maire yow sama sœur ni ñoo màggandoo comprendre la tey bu fekkoon ni Tëngéej mel na ni mu war a mel dëggantaan man du def politik damay def sama musique di tukki di dem Europe di ñëw di gere samay affaire mais bu fekkee ni waa Tëngéej yi yàlla may yëpp bu fekkee dañoo toog rek croiser bra bras ñii fi nekk dañuy foowee réew mi yéen a ngi nii mun leen bu tawee da ngeen di fay doo leen am foo leen jaar amu leen hôpital pauvreté extrême moo fi am fii nit ñi amuñu xaalis xale yi liggéeyuñu booy yëpp dañu waroon heure bi am liggéey di liggéey te ngeen nit ñi ñoo war a am bañ a am jiko xar ku la jox dugub nii rek moom la loolu nit ñi dañ ko war a bañ parce que Tëngéej boo xoolee côté bii ñu nekk nii mooy noor fii ma dëkk fi ma juddoo Nimzaat ak yëpp ba Daasalaam ak yëpp noor la bokk ki koy jiite mu ngi tudd Omar Mané def na fi douze ans douze ans la nekk maire kenn gisul benn tali bu mu defar ci Tëngéej wala foo xam ne gas na ko pour sax bu nawet jotee ndox mi mën faa jaar waa léegi mu ne beneen mandat la bëggaat def na douze ans mu ne dafa soxlawaat beneen cinq ans pour waa yéen ñii ni ngeen sonne di fay i ndox yeeg yooyu yéen ngeen falaat ko yéen koo xam ni falu nañ fukki at ñaar xalaatu leen lijjantiwu leen léegi nag mu bàyyi ba élection jot mu ne moom dafa bëgg a nekkaat candidat moom laa wax booy yi mooy génération xale yi jigéen yi ak ñu ku fi dégg Omar Mané wala albe wala nga dégg fi ku mel ni ay ñoom Aliou bu leen leen wooteel ah bu ñu mënoon dara dëkk bi baax parce que Tëngéej budget bi sept milliards la te kenn gisu fi benn chantier ci Tëngéej bu mat cent millions xaalis bi yëpp dañ koy lekk liggéey ñu dara ci dëkk bi léegi nag mbaju kanam borom a koy fajal boppam ñun soo gisee tey jii ñu ñëw dugg si lang gi mooy dafa am lu ñu métti mooy sunu dëkk yi yàqu nañu sunu jigéen ñi sonn nañ da gis jigéen bu am 40 ans boo gisee yaakaar ne am na 60 ans parce que coono dem marché jaabante sonn di daanu si potox potox yi di am ay jigéen ñëpp dañoo dem ñëpp am ay faux pas ndax pax yu bëri ak yàq damay bàyyi Maysa mi Maysa Sall moom côté bii la dëkk mu sànn ci ay kàddu. ñu ngi leen di ziyaare bu baax di leen ndokkeel di leen jox seen wàccuwaay. di am nag mbégte tamit ñëw fii tey ci teewaay fii ak suñu diggante ak ki nga xamante ni mooy maam góor di euh, ki nga xamante ni tey moom lañu tànn ci li ñuy ànd pour mu jiite listu maire ville euh, li tax ma gën a ñëw yàlla moo ko dogal mais yàlla du hasard dama tase ak moom mu téléphoné ma may génn juste yam ci moom kon su ma fii tey seen xol dana gën a sedd ci kaw su ma duggee ci biir waxtaan wi mhm. dañoo ànd ci benn coalition bu ñu tuddee booloo defar Tëngéej waaye ànd ci ak sunuy nawle ñu takku nag bari na ci waa Daaru Raxmaan dafa naa ne ku déggul Daam Ture xam nga ko mhm. mi ngi ci biir ku déggul Awa xam nga ko mhm. mi ngi ci biir ku déggul Ngóone Si xam nga ko mi ngi ci biir Modou Faye ñoom ñoom ñëpp ñu ngi ci biir donc du coalition bu ndaw moom nag yàlla defal ñu jiital ko ci coalition bi ne ko yow yaa ñu doy ci say qualité ci yaram ci teeyam ci dalam ak ci bëgg tëngéej jëm te nag ba pare mu nekk doomu tëngéej donc ba pare mu xam li nga xamante ni fa la góomba ne parce que tànku ngal la koy faj mooy docteur piir te moom docteur piir la ñu ne ko kon dinañ la jiital topp ci sa ginnaaw ànd ak yow ca mairie ville waaye rawatina nag sunu commune bii nga xamante mooy Rufisque noor tamit il faut ñu dem jongante ji ak ki nga xamante ni moo fi ne muy maam Omar Mané mu wëlbatiku ni ci ngoram ci dalam ak ci ki nga xamante ni tamit suur na démb tey doodu ñëw mu ne place boobee may naa leen ko topp xool leen koo leen di jiital waaye su ma sañoon man maam man maam góor dey jigéen ci boppam moom laa fonk te jigéen moo xam yoonu marché moo xam yoonu hôpital doo leen tànn jigéen joo xamante ni am na qualité bi man na ko te boo leen ko ci tegee kenn du mer ñu ne ko aha kay mu joxoñ yónni caam ñun ñu wëlbati ko ànd ak ku ñuy wax yónni caam mu teg ko ci boppu mairie Nord waaye dafa ni góor da koy góoral toppaat ci ginnaawam mu nekk kon loo xamante ni ki nga xamante ni bëtam mi ngi xool jigéen di xool ndaw ku ànd ak moom defe naa ni sa xel dana dal parce que ku xëy suba jox la ndékki bu la nee dinaa la jox añ rek boo tëddee nelawal waaye coalition bi tamit daf ci ànd xaritam koo xamante ni tey ñit ñi sax ñu ngi xaw a am lu ñuy waxtaane ca suuf te dañoo bëgg ñit ñi xam lu leer muy Souleymane Ndoye mi ngeen di dégg Souleymane Ndoye bi fi nawet bi ñëwee moo joxoon Dame Touré machine bi nga xamante ni moo doon manque ndox yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci biir kër yi donte dafa doyul te kon bu nekkoon maire xam nga loolu du am Mm-hmm. kon damay dëgg rek li maam góor wax ni Daaru man ci sukkuraat la ñu ne. Mm-hmm. ñu fas yéenee nag jóg ñun fexe ba loola man a bañ am marché bii ñu xañ leen tañ ko doon jéem a def ci garage bi. Mm-hmm. man mi maa ko fi indi woon waaye marché ba ba tey àggul indi naa fi partenaire maam góor indi fi ñëpp ñu war a démarrer marché bi seen maire tey bi moo leen ko xañ poste de santé bi ñu doon teg premier pierre bi. muy temps yële passé seen maire bay leen ko xañ duudu ko ne lañ ko jox. ba tey jii ciment tegewu fa xeer yaa taxaw móol fa kon xam nga ne ku def loola nekk na koo xamante ni tey jii bu ko yàlla joxoon dëkk bi loolu lépp dana fi raaf te maam góor loolu la fa séene indi institut islamique bii ñu waroon a def Daaru Rahmaan mu nekk quatre cent et quelques millions fële ca cité ñun ñi ñun ñoo ko fi indi mm. mais li nga xamante ni tey moom la ñu jóg te dañu ni ñun bala ñoo mën a def yooyu al fokk ñu jël maire yi muy maire ville muy maire noor ñu ne kon lañu leen dem xeexi ànd a population bi nag xool seenu njàmbat ñu ànd ca seenu njàmbat pour man koo saafara. Mm-hmm. yéen a xam nag seen góom. dëgg la ba pare ñun xamal leen seen góom parce que fi lañ dëkk ak yéen. Mm-hmm. fulla nag mooy jaay daqaar man du ma xëy juróom-ñaari at ñu may noot may xiif. Mm-hmm. di mar di sonn. wëlbatiku gis koo xamante ni tey mën na maa saafaraal sama góom boobu mën na ko fa ñu dem wutiwaat ka nga xamante ni moo ma tegoon coono. Souleymane Ndoye dawal nañu oto fii ji gis jigéen ji matu guddi man li baax Souleymane ak Baye Souleymane ni ndaw si de hôpital la jëm daf feebar ñu laaj maire bi daf ko yóbbu hôpital Aminta ñun dañoo wàcc avant oto bi àgg xale bi jub na daam Touré otoom boobu ngay gis foofu mooy ambulance daar wax na dëgg la waay am mooy ambulance daar wax nekkul meer nekkul dara mais bu amee fukki dërëmam làmp bu nekk fii tàkkul moom moo ko fi taal. robinet ba la nekk sa garage ba moo ko fa yóbbu. te ñun yoraguñu maire bi. mais kon soo ñëwee ñu am ci yow cofeel goo xamante ni tey jii buñ la jiitalee li nga xamante ni xalaat nañ ko di nga ko def kon dama naan ne sotti ci ak def ci la. kon encore une fois dama leen di remercier li leen xamal ni leen ngeen topp ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy maam góor mii te mu boot leen. ñun ñu ñëw lëkkaloo ak moom pour ànd ak moom danañu gën a xamante ba nga xam ne bu ëllëgee lépp lu ñuy def ci Daaru Rahman dañuy nekk benn bool sukkandoo soobandoo sippendoo kon man li ma fi indi mooy su ma fi jógee dinaa fexe ba gis ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ñun te ñu dëkk Daaru ñu fexe ba ngeen xamante ak yéen mm-hmm. mu nekk benn njaboot njaboot gi nag ñaar rek la maam góor la fii ak yónni caam jigéen ñi yónni caam moo fi ne maam Góor moom moo nekk maire ville la jëm wëlbatiku toftal yónni ci am na ko jiitul ma ànd ak yow gunge la ci mairie nord pour ñu jële fi li nga xamante ne moo fi ne keneen ku fi ñëw nag ànd ñoo moom. dëgg la joxuñu ko loxo. maam Góor yónnee wu fi Souleymane Ndoye yónnee wu fi keneen yónnee wu fi ku dul ñun ñii. soo xoolee ci Tëngéej moom rek moo ci nekk jigéen yoo xam ni day wut mairie tey man bi ma bi ma jiitalee ba pare. mënoon naa jël góor toftal ko suma ginnaaw mais dañ ni ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaar mooy wodd sër te nag jigéen mooy am doom jigéen mooy wasin tey jigéen mooy dem marché jigéen mooy togg tey boo jëlee jigéen jiital ko moom dina xam coono yi nga xam ni moom la ji mooy moom la jigéen ñi moom mooy dal jigéen ñi parce que jigéen góor mën na xam coono jigéen mais jigéen ni moom xam a jigéen man mi tey ji lu ma xam coono jigéen coono jigéen àdduna du neex ba ma matu mais tey jii jigéen mat da koy dal te yónni moomu am na ay doom xam na li ci nekk kii mat amul oto amul moyen mu dal ko xaaju guddi kenn xamul ban heure la koy dal muy téngi téngi di téngi téngi ba koy ba bay am doom ci oto ça veut ne tey bu ñu falee jigéen fii ci noor boo góor góorgóorloo jàppale madame yónni Thiam mu falu coono jigéen ñi day jeex parce que góor gi fi nekk moom jigéen a ko ba njëriñ amul benn njëriñ Omar Mané donc nag bu fi ñëwee moom la moom la waa Bennoo Bokk Yaakaar jiital fii bu leen leen wooteel man ñëpp xam nañ ne Macky Sall suma xarit la moom laa àndal mais bi mu jiitalee Ismaïla Madior damaa posé suma candidature ni damay jàkkaarloog Ismaïla majoor ndax man dama jàpp ni ñi dëkk ci dëkk bi ñoo mën a defar dëkk bi te ñun doomi dëkk bi lañ fii lañ juddoo duñu duñu duñu duñu saxeyaay fi lañ juddoo màgge fi am fi suñuy kër suñuy njaboot nekk fi donc nag nit du yor ab dëkk juróom-ñaari at pax sax gasu ko fa maasale ko yëpp Rufisquois yi weesul mu def fi fukki at ak ñaar defu fi dara naan dafa bëgg beneen juróom-ñaari at buñ ko waa Tëngéej dañoo ñàkk fayda noonu te nag waa Tëngéej waa Daaru Rahmaan ci gën a sonn bu ku fi ku fi ñëw di campagne dàq leen ko parce que ki nga xam ni dafa toog juróom-ñaari at di la xët bàyyi ba élection yu jub si mu ñëw sa kër da saaga donc ñooñu ñu ay nit yu nit yi war a jàppale yónni nag tey bii première réunion la rek ma ñëw fii mais damay ñëwaat fii ñoo organiser meeting bu mag fii bu mag a mag a mag ma financé leen jàppale leen am na tamit ay mbootaay comme jigéen ñi ay financement yoo xam ni yàlla dimbali lañu am nañ ay relation tey jii bu ñu boo leen amee mbootaay bu dëgër ay femmes yu bëri tey ñun mun nañ jàppale financé ba ay mille femmes xam nga femmes yi nekk fii yëpp ay ñu ay jën la ñuy jaay ñi commerce la ñuy def ñi tailleur la ñu ñi tey ji boo jëlee financé leen xaalis bi nag nekkul xaalis boo xam dañ koy may ku ñu financé da fay mais nag di ko fay fay boo xam ni doo gaañu parce que yow tey jii soo dee liggéey ñu jox la juróom fukki junni ni la del joxe chaque fin de mois junni xanaa nag loo ñàkk a doxle doxle doxle bu weeru dee di nga mën a joxe junni ah, dëgg la wala dëgg dafa bëgg dëkk parce que yéen bu ngeen fii ni ngeen dëkkee yéen a ngi ci ndox mi fii seen mbedd yi yaatuwul amoo leen fu ngeen këpp ndox war ngeen au minimum ngeen xool seen intérêt. di ziar yéen ñëpp leen masaw coow ndax euh, li leen di li leen metti moo ñu metti ñun man damay roto damay daw ci dëkk bi mais bu timis jotee. boo ñëwee da ngay gis ni waa Jorgo dañoo sonn boo ñëwee seen garage dañ doon njëkkante mais léegi dañuy def métti fu aaraan dañuy rang-rang bu sori oto yi doyuñu parce que yoon wi baaxul chauffeur boo nee nii mu ne la luyaas laay daw parce que du ma ñëpp quatre personnes jaar ci pax yi naam ba effectivement dëgg la parce que yoon wi baaxul tey leen kese moo ñu ci mën a dimbali li ñu sauvé mooy que ñu ànd yi nax yi ngi doon nax bu ñëwee jox ñu deux mille jox ñu ay xartum teg njaga njaay ñu solu ci ba fees del dem yuuxu perte suñu ñuy liggéey suñu kaw ñun dañu war a yeewu yeewu gi nag lu leen muy lu leen lu dul que ñi fi nekkoon plus de dix ans wala douze ans amul dara luñ fi def lu dul jàpp marché bi di yëkkati doomu aadama yi nga xam ni seen jël ci marché bi lañ ko yaakaar dañuy xëy fajar dem ñu leen di toroxal di jël seeni i marchandises. wallaay man mii seen xel daloon. wallaahi duñ ñëwaat ne dañuy ut parce que mënuñu la jiital ci ab dëkk nga nekk fa ay juróomi at sax bari na amoo dara loo réagir tabax ay magasin di louer pour après boo wàccee nga am ca dara looy faraatu loolu moo fi war a jeex li ko fi jëlee nag mooy ànd booloo bii ñu wax defar Tëngéej muy góor di jigéen di mag ak ndaw ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp ñëpp ñoo bokk li ñu metti Tëngéej amul fu jàkk Tëngéej gépp a dellu ginnaaw ñu fexee ba Tëngéej baax te ñu yaakaar ci président Mame muy doomu Tëngéej nekkul kuy dundee Tëngéej wala ku dundal Tëngéej non non kuy ñëw pour dëkk ci dëkk bi dundewul dëkk bi mënoon a toog ci ruqam gérer li mu war a gérer kenn du ko xamal dara mais li ko metti mooy li metti askan bi moo tax mu volonté wu jël ay benn boppam parce que politique li muy politique kenn joxu ko ko ay xaalisu boppam la génne di ko politique xaalisu boppam la yóbbu d'accord ñu àndandoo ñun ñëpp topp ci ginnaaw ci kàttanu yàlla jour ba bu neexee yàlla ñu gañ a leen fi dégg na commencé liggéey bi defar tënkee ñun ñëpp ñu bokk ci. du politicien maam nga wax du politicien li ñu metti ñun en tant que jeune moo ko metti mu am ay moyens boppam jóg ne carrément kat li may def si social dama koy partager ak Rufisquois yëpp bu ko neexoon day toog si coin li mu am mu suturlu si mook njabootam mais dañ dem ba si yàgg mu xam ne ngi jëmul kër parce que ñi fi nekk mu ñu la fal nga war a defar dëkk bi askan wi fal la dénk la dénk la suñu alal yow nga tëdd si di takk ay jawar di si tabax say kër mënta ne ah, mënta ne il faut li fi nekk toujours ñu wax ko te yéen waa Darou Rahmane da bokk si ñi nga xamante ne képp ko fi falu yéen a ko fal waa Daara man kon donc tey euh, euh, coalition bi mooy coalition ànd booloo defar Tëngéej kon donc tey ñu ñëpp li ñu met si Tëngéej buñ ko bëggee faj il fallait que ñu fal Mame Ngor Diazaka su ko defee moom mi nga xamante ne fii la juddoo yaroo fi màggee fi xam jafe-jafe dëkk bi mën a taxaw si coono dëkk bi mën a taxaw si jafe-jafe population bi mais buñ ko deful rek def leneen te ñii fi nekk comme niñ ko waxee moom kenn amatul droit ku dëkk Tëngéej sànnil fi kart koo xamante ne nii ba na fi toog parce que liggéeyoo liñ la dénk respecté woo doomu aadama lu war danga jël dugal sa poos population bi askan wi nekk si ginaaw di souffrir si alal joo xam ne ñun ñoo ko ñu population bi ñun ñoo ko moom kon nag donc ñun ñëpp nañ ko xamee noonu ñu ànd ak booloo defar Tëngéej ànd si ak Mame Goor Diazaka ànd si ak tata yónni ñu àndandoo bu bees ba ñu ñëpp ñu bokk fal leen incha allah tamit dañ la jàppale ndax am nañ ci yow yaakaar trop nag ndax xam naa ne boo bu amoon si yow yaakaar ndey jub du la waaw gannaaw yàlla yonent bi nag am nañ ci yow yaakaar bëgg nañ ku ñu jàppale torop sonn nañ nag fu ne dem nañ fa oto bu gaare ñu topp la bu oote ñu topp la te gisuñ suñu yaakaar nañ la nag gannaaw yàlla yonent bi yow lañ yaakaar jàppale ñu génne ñu si coono sonn nañ yow rek <laughs>

Rồi dắt allah le 23 janvier soo leen di woote ngeen woote booloo defar Tëngéej parce que urne bi bu ñu boo demee ci urne bi di voté ñett ñoo fay nekk day am liste boo xam ni moom mooy pour département am boo xam ni mooy pour ville bi am boo xam ni moom mooy pour noor yéen ñi nga xam ne da ngeen dëkk noor jigéen ñëpp ko xàmmee ku musóoru mooy yónni ngeen wooteel yónni boo leen demee ville ngeen woote mam góor jasaake waaw booloo defar te ngeen loolu ñu sàmm kóllëre gi jàppante léegi xamaa ni xamaa ni jigéen ñoo moom bu ñu defee ay kii nu mu tudd bu ñu defee mbootaay seen mbootaay day am ay kees ak yooyu léegi kees gi naa ci participer juróomi junni jox la ko. waaw ma jox leen juróomi junni yi maa ko participé ci kees ci kees ak chef de quartier bu baax lii da la ñu waxoon. daan ture da ngeen bu bu ñu. saytu ngeen àndal saytu ngeen àndal. xam bi nee la dëkk kontaan nañ trop. loolu ko nangu de loolu. la gis dem seen nga xam ne yéen ngi safoo di seetaan seen chaîne bu mag bi di référence actu yéen ngi ko gis ñu ne ak le monsieur le maire le président Mame Gor Diazaka mu ngi woon tey fii Darou Rahman Rufisque Nord. fi lañ ñëw tey mbokk yi président xanaa ñu bàyyi laa nga nuyoog askan wi ak bi nga duggee fii ci dëkk bi lan nga sentir ci yoon bi ak coono bi nga xam ne moom la waa dëkk bi di waaw maa ngi lay remercier di remercier waa référence yi tey maa ngi fii ci Darou Rahman mais tey bi ma fi duggee dëgg dëgg nañ yàlla suma yaram daw na euh, xaw naa daal am ay pincement parce que boo xoolee mbedd yi fenn baaxul yoon yi xat na. fii am na ay mbedd yoo xam ne bu depuis nawet bi ba léegi ay ay depuis sept mois oto mënu ci jaar loolu dafa nekk loo xam ne dëgg dëgg neex yàlla lu ñaaw la te boo xoolee tey jii mu nekk ci xolu Tëngéej képp ku gañ a Tëngéej fii moo tax nga gañ a Tëngéej ñu continuer di leen nax loolu ñun dañ ko war a dagg moo tax tey ñu ñëw seet si leen ñu accueil na accueil accueil bu am solo ñu leen di wax nii leen tamit incha allah bu la 23 janvier jotee incha allah ñu votel booloo defaraat tënge defar tënge ba nga xam ni euh, tey Rufisquois yi ci boppam bu ñu jëlee dëkk bi ñoom dinañ sentir ne doomu dëkk bi jël la dëkk bi parce que il faut nit ñi comprendre ni affaire u maire amul école bu ñu koy jàngale bëgg sa dëkk la fonk sa gox dem wuti ay relation ñëw defar sa dëkk mais dafa am ñu bëri ñoo xam ni dañuy wër di intoxé ah naan diw lan la jàng diw lan la jàng diw lan la jàng tey jii ñaar rek ñooy dégg créateur yàlla ak artiste donc boo xoolee nit fi mu jógee ak tey fi mu yegg si war nga ne xam ni kii il a du te incha allah bu yàlla dogalee le 24 janvier ñu jël mairie Tëngéej dinañ defar Tëngéej ba ku fi ñëw xam ne Tëngéej doomam jël na ko te mu koy def. incha allah président ñu gis bi nga déggee jigéen ñi ne ñoom euh, jigéen bu bëgg am fii doom da ngay daj coono da ngay sonn ndax di nga am problème am oto wala oto ba la yóbbu ndax fii quartier bi ba mu daj amul salle loo xam ne nii poste de santé la boo xam ne ñoom dinañ ko mën a jëfandikoo ana lan ngay yëg sa xol ak jigéen ñi coono gi ñuy daj. non dama am j'ai le cœur de parce que boo xoolee tey jii. xam nga bu fekkoon ni dañu nekk boori fongolo bi wala ñu nekk boori Gambie ci biir euh, au forfait du Sénégal sax ñu mën a wax mais au est à vingt vingt vingt kilomètres de Dakar fii tey jii mënuñu wax vingt huit léegi. vingt kilomètres de Dakar ñu nekk ci diggu Tëngéej ci ci ci diggu capitalu Sénégal mu am ay quartiers yoo xam ne nit ñi pour ñu am doom dañuy am ay problème tey nag yàlla dogal na fii mooy mairie Nord sunu coalition booloo dafa Tëngéej ki ñu fi teg jigéen la comme ñoom mu soxna yónni càmm incha allah man xam naa ni bu jëlee mairie nord bi dinañ fexe ba nga xam ni dinañ fi def benn centre hospitalier boo xam ni tey jii boo xoolee fi dafa bari dafa bari population côté bii donc il faut ñu créer beneen hôpital boo xam ne day secondé Youssou Mbargane nga xam ni dëgg dëgg neex yàlla képp ku dëkk ci gox yi soo feebaree war a mën dem faju te doo am benn problème te loolu incha allah dinañ ko jël boole ko suñu programme parce que saa yoo génnee dem ci nit ñi. ci nit ñi ngee mën a jël loo xam ne mën nga ko dolli sa programme parce que loo programme programme dina am loo xam ne ci nit ñi rek la war a mën a jóge nga dégg ko nga nga nga jël adopté ko boole ko ci li nga xam ne moom mooy sa programme. jërëjëf merci.